jërë ngeen jëf dafa am benn doomu xaj boo xamante ni euh, foog ma ma ma tontu ko mais balaa ma koy tontu foog ma tegal leen vidéo bi mu wax parce que dafa am foo xamante ni nag boo fa laalee rek laal nga ñu boo fa joxoñee baaraam rek maanaam joxoñ nga ñu su ko defee nag ku la laal boo ragalul laal ko ba tax na xaj bi dafa mbaw jëmale ci ñun foog ñu wax ko boppam wan ko boppam it muy cheikh bara ndjay nga yanoti fi xolal Macky Sall bi mi dem dakaja mhm. hmm bi mi dem dakaja mhm. euh nga xamne liko top ci ay auto auto auto auto auto yu 4 4 Prado yi mhm. danaka ëpp na 40 40 auto xol auto bobu ben bu nek limi jar ben bu nek chauffeur bako yor ben bu nek garde corps ba ca top ben bu nek limi def ci essence ak ka nek manam ka nek jital bir ba lañ koy fay d'accord ñoñu lepp lolu lepp boko bolé nga yan ko gis nga dafa am loo xamante ni boo alkoo rek faw nga laal ko te jàpp naa ni danga alko gis nga yow ak Ousmane Sonko mi nga yaakaar ak politiciens yi lay jox alal ni la waxal yéen ñépp laa wax amu ci kenn koo xamante ni dinañ la bàyyi ngay duut baaraam ci Daaka Madina Gunaas bu fekkee waxkatu dëgg nga rek waxkatu dëgg nga dangay wax dëgg te yàlla tax lijjantil million yi gouvernement bi di jël fii ndakaaru dugal ko tuubaa du yow fa nga fekk baax du murit nga du Touba nga fekk baax lijjantil 2012 ak léegi ñaata milliards la président dugal Touba lijjanti ko ak bu fay dem nan la fay demee bu demee nan lañ koy gàttandoo ak nan lañ koy dugalee lijjantil loolu gis nga seen yëfu naafiq yi ngeen war a ba kenn ku ne dafa am foo féete am foo nekk am foo bàyyi ko. kenn ku ne dafa am ko yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi dafa am koo dénk sa bopp ñun Daaka Madina Gunaas bu na Mohamed Seydou Ba bu Thierno Ahmed Tidiane Ba le xalifa général de Daaka Madina Gunaas dañ koo yaakaar dañ koo jox suñu bopp te doy nañu képp nag ci jaamu yàlla amul lenn lu ñuy wuti fenn amul lenn lu ñuy jàngi fenn lenn nag leen lay wax mooy sa propos yi nang ko retiré penn ñaareel bi mooy bu ci jaaraat ñun bi ñu juddoo dañoo jàngal jàngal ñu charia jàngal ñu àdduna jàngal ñu diine ba pare nag jàngal ñu maandute mais yow maanduwoo yaruwoo amoo diine parce que rànki ñéega yaag yaag Sonko yéen a yaag Sonko sama yoon nekkul ci yéen ñaar parce que yéen ñaar ñëpp ay xaj ngeen des chiens yow du du yaag Sonko rek ñi nga àndal ñëpp ay xaj ngeen ay doomi xaj ngeen tamit gis nga benn mbir dafa am seen doon doomi xaj gi ngeen ngeen ngeen war ko yemale ci seen bopp ngeen mbëwante seen biir ñun waxuñu leen a waxuñu leen b du ngeen nekk doomi xaj ba pare bëgg yeb nit ñi Dakar président bu fay dem yow sa bopp daf la waroon yeew yóbbaale la président bu fay bu fay dem dafa war a yóbbu oto yi ci ndakaaru gépp la war a yóbbu Dakar Aly Ngouille Ndiaye dafa am lu mu waxoon dama leen koy dégtal léegi-léegi ngeen déglu ko

Madame, nous des milliers de personnes pratiquement sous une tente pendant une dizaine de jours dans cette promiscuité là Ce n'était pas évident bu jour la cérémonie officielle Nous avons fait une réunion à la présidence de la république les autorités il fallait lañ ñu wax ak ñoom wax ak xalif bi li nga xam ne lii mooy problème bii nga xam ne bii ci la ñu jëm bu fekkente ne programme bi bàyyi nañ ko ndaka nii mu mel. jërëjëf Aly Ngouille njaay gis nga seede li yàlla def dafa baax ci jullit julli day seede dëgg daaka mooy mooy dental bi nga xamante nii fukki fanu yàlla ci biir àll jigéen du ñu rax caaxaankat duñu rax fenkat duñu rax jëwkat duñu rax julli jàng alxuraan ñaan yàlla sunu borom te lu ñu fa ñaan nag yàlla de koy nangu lu ñu fa ñaan lu ne yàlla de koy nangu kilifa mi ñu jiite it nekk kilifa bu maandu ku baax kooku yëlloona lu ne lépp luñ ko defal ci teraanga yëlloona lu ko ëpp yow Cheikh Bara Ndiaye nga nekk xaj doomi xaj ba pare am luy wax ci dentalu Daaka Daaka président bu fay dem lu mu fa yóbbu rek am na lu mu fa jëlee lu ko ëpp doole parce que lu ñu ko defalul ci àdduna amul benn nag laa dama lay wax benn mbir gis nga sa doonub opposant sa doonub xaritu Sonko su ñoon nekku ci xaj nga muy xaj ngeen di ñaari xaj di ànd su ñoon nekkul ci yéen donc bu leen yee yàbbi jëm ci Daaka li ngeen bëgg du ngeen ko am réew mi ngeen di wuut bi ngeen di wuut nii du ngeen ko am xam ngeen sax du am yéen xam ngeen du am yow amoo kilifa xaj nga te doomu xaj nga daaka Madina Gunaas du sa moroom du sa moroom yi bàyyi ña ne ñoo la dàq jàng raw la ëpp la xam-xam ëpp sa ndey ak sa baay xam-xam koo munti yaakaar ñun ki ñu yaara ki ñu gën ki ñu yaakaara ku gën ñun ngay doomi xaj di am looy wax ci daaka Madina Gunaas waaye fit chewaay doomi xaj